Rayo moi quatrième opérateur de téléphonie fixe Sénégal basé au ca nous ñu taxawal depuis 2015 service au Rayo yi mën nga ko am fait Pour dem ci àdduna foo nekk mën nga wut abonnement surtout yéen ni mbokk yi Italie so bëggee xéwalu ci bànneexu Rayo de vous joxe sa carte d'identité Sénégal ou le passeport nga avez am ci application Rayo ak numéro téléphone bu bees li ci gëna neex ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am 40 minutes de communication yokk si nag 15 jours yu nekk waa dinañu def promotion 100 ou wala 200 pour ngir gën a yokk sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da ngaa bëgg liggéey ak Xayo te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gën a yomb te gën neex Manga Joko ak Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 Yomi nek Italy, Italie dawal wuti sa abonnement Hayo ngir yéen mbokk yi safoo seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziara amaan mbégte lool teewaat fii ci seen njataay bii di Xam Sam Réew ngir ànd ak yéen niñ ko doore woon ci jéem a xamle borom Darou Mouhty ngir waajtaayu màggalu Darou Mouhty gii ñu dëgmal may nuyu ak ziyaara ci fi toog toogaayib ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba di sëriñ Muntaxa Mbakke sunu boroom may ko fanu gudd ak wér-gi-yaram moom njabootu sëriñ Tuuba gépp di nuyu ak ziyaara sëriñ Basiru Anta Ñaŋ mi toog toogaayu borom Daarul Muxti moom itam di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te wéral ko ak njabootu borom Daarul Muxti gépp mu njaboot gi nekk ci biir dëkk bi ak njaboot gi génniku di nuyoo ziyaara bokk yi nuy topp fu ñu mën di tollu waa ci pàngook ñuy safoo Xam Sam Réew TV te nekk ci Facebook bi waa support xam sam réew ci Amérique sëriñ Basiru Fall ñoom suñ Bamba Mbeng ak bokki taalibe yëpp leen di nuyu di leen ziara di nuyu sëriñ May Jeng ca Maroc ak sëriñ Saliou Mbàkke moom itam ca Maroc fàttewuñu Sidna Omar Ba ak soxnaam soxna Awa Taal Ba di ziare Serigne Mbacke Diop nekk ci Savona ci Italie ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara waaye nag di beral nuyu ak ziara Serigne Abdoul Aziz Touré di xalifa Serigne Adi Touré fu mu toll mu ngi nuy nemmeeku soxna Umbi Sarr ci Los Angeles ñoo ngi jot message yi soxna Tuutu Bayri Ndiaye nekk ci France moom ñoo ngi jot message yi kon ku daal doo matal kon noo ngi siyaare mbokk yépp fas yéene ñëw ak yéen ci fukkeelu pàcc bi ak ñett muy treizième épisode ci jéem a xamle boroom daarul mooti bi may tàggoog yéen ci fukkeelu pàcc bi ak ñaar digoon naa leen ni leen ci pàcc fukkeelu pàcc bi ak ñett dinañu jema ñëw indi jikkoy borom darul muhti mu donon jikko yu rafet jikko yo xamni mu ngi ko donde won wala mi ngi ko ballalo wala mi ngi ko nampe ci ku tedd ki khadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba ndax mom moy ki nga xamante ni moom la Serigne Touba jël defar ko ni yéen ñëpp xool leen kii mooy ni ma bëgg murit mel ni maanaam li tubaab di wax modèle kii mooy modèle bi Serigne Touba lu nekk ci borom Darou Mouhty moo ko ca def wax naa leen ni ba muy ànd ak sëriñ bi neewoon na yaakaarul woon ni dana am ku ko aw ci satal ak sëriñ bii muy ŋàbb daana wax itam ni maag sëriñ Touba de bi ñuy tabax yoon wi maanaam bi sëriñ Touba yi tabax yoon wi noonu di nga xamante ni ab masoŋ su dee tabax ba fa muy la muy tabax kawe bu jotatu ko day wut ab raas yéeg ca ba mën a jotaat la mu doon def nee na moom moo doon raasub sëriñ bi nga xamante ni ba mu demee ba yittewoo ab raas ci waggam yi la taxaw di wee liggéey ba te nee musuma ni oh musuma wonk defe naa ñaam ak dégg danañ xam li mu bëgg a wax li borom daaru muxti wax kon jëmma ngi noonu joo xamante ni ju yàgg ak sëriñ Touba la jom ji mu nekke woon ba bi ko sëriñ bi bàyyee njaboot gi mu yore ko ak yoon wi ba sëriñ bi dellu si ci sëriñ bi la ko jële doon naa leen wax ni Sëriñ Mbakke Madina daana wax ni maamam jooju di borom Daarul Muxti day jikkoom yépp a ko neex waaye jikko jikko ci gën a neex mooy lu yàlla dogal rek neex na boroom Daarul Muxti di jikko ju rafet maa ngi leen doon wax ni man dey jikkoy borom moo ci am ak dogu bokk na ci li ci gën a neex ndax wax naa leen ni keroog ba mu naan pepp day dugub su fekkee bay rekk moo koy maye dootuma ko ñàkk waaye loolu moo waxoon wax naa leen ba la mu ko jural ba président France di ko décoré moom sëñ Modou Moustapha maanaam ak dogu dafa am solo lool ci nit lii laay def wala fii laa yëm dara bañ laa jàddloo ndax nit ki mën naa tàmbali lu baax dem ab diir mu teg ko fi suuf waaye boroom daarul ci moom lépp loo xamante ni bii dogu na ca rek loolee def koy wéel bokk na ci loolu fajar googu yi nga xamante ni ci la tàggoo ak sëriñ bi ca Mbàkke yi keroog la door bis bu nekk ñu jàng ñaari kaamil bu ñu jullee takkusaan ba noppi itam def junnib salaatun tunajjina ñaan sëriñ bi dellu siwaat ak jàmm ci njaboot gi yaakaar naa ni 1895 ak ren at yu bari la ndax borom daarul bi mu dooree ñaari kaamil yooyu ak salaatun tunajjinaa ca Mbakke Bari ndax bi sëriñ bi ñibbisee daf koo dakkal walla déet ndax sëñ bi su dee ci weeri jullit yi walla ati jullit yi def na ci tukki bi maanaam kera bi mu tàggoo ak boroom darul moxti ci Mbàkke Bari ci Jolof ba ci juróom benn fan yi Shahban yi mu wàccaat doon le 11 novembre 1902 juróom-ñaari at la ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeri jullit yi ñu tek ci juróom ñeenti fan di fukki fan ak juróom ci aw mbaraxlu mu yónni si si mu yónni sëriñ isa jenn borom njenneeg lagan ngir mu ñëw woo si borom daarul ci daarul mënaan ngir mu fekki wuy ji sëriñ ba dar nga xamni ni bis bañu taggo won doon fukki fana ñet ci safar di bis bi ñuy màggal touba ña nga gisantewaat ca ndar wax leen ni ak gennam kërëm goge di daru di mbakke bari ba bi muy wàccaat ci waaxum ndakaaru juróomi weer la juróomi at la juróom-ñaari at la ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett nga xam ni bi muy gisante ak sëriñ ak boroom daarul moo ci gannaaw ba ñu tàggoo juróom ñaari at la ak juróomi weer ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar daanaka juróom ñaari at ak juróom benn weer ci ati jullit yi waaye loolee mu dooroon ca Mbàkke Baari muy ñaari kaamil ak salaatun na sëriñ bi ñibbisi na mu wéyal ko maanaam li ci gàttal li mu nekk ci kaw suuf yépp bis bu set def na ko ba tey jii ñaari kaamil yooyu ko jàng Daarul Muxti bu ñu jullee takkusaan ci jumaa ji bu ñu noppee dinañ def salaatun tu najjina boobee may ziare sëriñ Xaadim docteur mi toog toogaayu si mu raw balla ndeysaan danay ñëw di nemmeeku di teewee jataay boobee noonu ko borom daaru mu si daan defee nga xam ne dañoo wutoon gif gifuk buy ñu xamul lan mooy gif mooy buy bu ñu jàmb ba noppi doom ya ci lañuy wàññi junni wut as ngise saako ndimu ñaw ko def doomi gif yooye ci biir doomi buyye ya. bu ñu julee tàkkusaan ba nopi dañuy def kurel, ni kurel xasi jankati xaside di def dal li jël mbuss ma soti junni doomi buyya junni gifi buyya ci digg ba ñu wër ko ku def genn salatu rek dal di jël benn doom ku def benn salaatu rek daal di def daal di jël benn doom teg sa kanam bu jal ba jeexee junniy salaatu tu na jinaayu mat dogug boroom daarul moxti googee moom la Cheikh Mamat Awa Balla mi ko njëkk a wéel moom la Cheikh Abdul Xuddus Mbàkke wéel moom la Sëriñ Cheikh Xaddi Mbàkke wéel moom la Sëriñ Abbas Mbàkke wéel Sëriñ Basiru Anta Ñaŋ mii fi nekk itam yàlla nu fi yàgg lool Mbàkke te wér loolee wéral wéel muy kaamil yooyu borom daaru sosoon ak junnib salaatun tu najjina kon jikkoo ngi noonu itam di jikko ju ma neex maanaam jikko yi borom daaru moxti ku bëgg jikko yi rafet jikko yoo ci dégg rek day mel ni moo lay gënal ja des waaye jeneen jikkoo ngi nii yoo xamante ni jafe na lool ci sunu tumuranke na lool ci sunu jamono ji nu nekk jikko jo moy lan mooy xam sikkus nit ba noppi dàq ko koo nëbbal xam sikkus nit ba noppi dàq ko ko nëbbal mooy lan nga xam ne Mbaye Guèye mii kat day yël alali jàmbur muy li ñuy wax sàcc Mbaye Guèye mii kat day njaaloo Mbaye Guèye mii kat day naan sàngara yow mu leer na ni loolu lépp mbay géey mii da koy def nga xam ko ba noppi dàq ko nëbb mbay géey bi koy def mooy jikko joo xamante ni muy xam sikkus nit ba noppi dàq ko koo nëbb loolu mën na wax ni jeex na ci sunu jamono ji léegi kay li fi am mooy wutal nit sikk su amut waaye sikk soo xamante ni def nañ ko gis nañu mbéy mu mandi ci mbedd bi léegi mu siiw yow mu ko njëkk a gis yaa daan xëyee mbéy di tey boo ko gisee munta dox moom nag borom daru daf daan xam sa sikk ba noppi dàq la ko nëbb yow mi ko def loolu mbokk yi di jikko joo xamante ni yittewoo ko lool lool lool lool lool lool lool yittewoo nañ ko lool ci jamono jii ndax jikko la joo xamante ni ah xëy na am nañu ko am ba léegi waaye e, mën na ma wax ni jafe na de te loolu day xam si ku nit ba noppi dàq ko koo nëbb loole day boroom daarul mooti jikko woo woon na ko ak jikko jooju nga xamante ni moom la Sëriñ ma Madina wax ni moo ko gënoon a neex ci jikkoy borom daarul moxti yi mooy boo ñëwee ni ko man dey sama soxna dafa am gan dafa am doom mu ne alhamdulilahi rabbil alamin nga ñëw ni ko man dey sama baay daa wàcc ab liggéey mu ne alhamdulilahi rabbil alamin moom lu sunu borom def rek neex na ko moom borom daarul moxti boo ñëwee wax ko ko juddu mu sant yàlla bu ñëwee wax ko faatu itam mu sant yàlla loolu mbokkoon na ci jikko boroom daarul moxti amoon na jeneen jikko itam moo doon xam ay naxam ba noppi lu ngu caa tàbbi nga ñëw di sàkku ndimbal euh, wax say wax yoo xamante ni bëgg ndimbal tax nga di ko wax waaye nekkul mu xam ni lii nga wax nekkul ba noppi waaye teewul sa soxla soosee dina la ko fajal loolu la wolof di wax ni xam say nax ba noppi nungu caa tabbi di ko joo xamante ni sëtam ba Serigne mun Maymuna doon noon na ko ci maamam ñu sant Cissé ñu sant Lo dañu daa for aw kayit rek ñëw ni sëñ Moustapha sama ordinance bi laa bëgg nga jëndal ma ko dem na ba ñu koy wër yee ko ci waaye moom boo ko waxee du xool ndax ordonnance wala bu la laajee looy lu muy jar rek boo ko ko waxee mu euh, jox la ko kon boroom daarul ci bokkoon na ci jikkoom itam nungoo diisoo ñamu war a diisool du ne woon kilifa laa du ma diisoo kenn déedéet waaye nu mu woon na itam kooku kilifteef ci fees ko war a yilife kon jikko yu rafet li mu ci yoroon euh, du ma ni kenn yoratu ko de waaye jafe na boole lool lool lool lool lool lool kon jikkoo ngi noonu maanaam jikkooy boroom daaru muxti mu ngi noonu xanaa nu ñaan yàlla jéem koo roy ci jikkoom yooyu di jikko yu ñu tànn ndax sëñ mu daw balla mi ko njëkk a wuutu bi mu demee ziyaara ji sëñ muudu Moustapha ba mu ko yeewi muy dellu Daarul Muxti ne woon na ko muudu boo demee na nga nungu mbindeef yi ñuy añ ci sa wërsëg tey reer ci sab der ni ko man Modou Moustapha mii de bu fekkoonte ni tey sama der bi mbuus la ma ni mënatu def pepp ndax ay jam-jam waaye la muy bëgg wax sëñ mu Awa Balla rek te loolu itam eh, ñu war ko yittiwoo ci jamono jii mooy ñi la war nga jaboote leen bu añ jotee ñëw lekk sab añ bu guddee fu ñu wéet nekk ci yow sab der nga xam ko ba noppi nu wonoo leen ko loolu tam jikko ju jaf ju ju jafe la Cheikh Moustapha loolee mu ni sama der bi bu doon te ni eh, mbuus la mënatula def pepp du ay jam-jam de déedéet ndax moom koo jéem a wutal ab jam-jam loo ko dural waaye ma ngay wax sëñ Modou ni ko rek ñu nekk fi yow di añ ci sab añ te bu guddee ñu nekk ci di la di la jëw di la wax lu dul noonu boo ko yëgeet eh, li ñuy wax dégg farnaaral bul ko jàpp kon ñoom ay jikko yu rafet a rafet a rafet lañ yoroon kon nag bi nu demee ba jafono toll fii mu toll war na noo jàng ci seen jikko yooyee di leen ci roy mbokk yi kon fukkeelu pàcc bi ak ñett fii laa koy yamale di leen jox dox daje ci fukkeel bi ak ñeent di ziyaare bokk yépp rek di leen soññu xam naa ngir ngeen abonné ci seen chaine bi gis naa ni jamono yi ñi sàkku ngir ñu dugal leen ci kippaangoog ñiy safoo ba léegi nii rek am na juróom-ñett yu mu ci dugal ñu ko sàkku woon kon abonné leen ci chaîne bi te yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf waa Italie yëg ngeen xew-xew bu neex bii xayoo dikk na ak xéewal yu amul fenn Rayo moi quatrième opérateur de téléphonie fixe au Sénégal basé Mutiamatam, nous Matam depuis 2015 service Rayo yi fait nga ko am fépp Pour dem ci àdduna foo nekk surtout nga wut abonnement surtout yéen ni mbokk yi Italie soo bëggee xéwalu ci vous Rayo da sa carte d'identité Sénégal ou sa passeport nga avez di application Rayo avec numéro de téléphone bu bees li ci gëna neex mooy ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am 40 minutes de communication yokk si nag 15 jours yu nekk waa Xayo dinañu def promotion 100 ou le wala 200 ngir gën a yokk sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da nga bëgg liggéey ak Xayo nag te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gën a yomb te gën neex mën Joko Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie T. 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 Yomi Nek dawal ka sa abonnement Hayo